asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk yi taalibe yi mbokk ñuy topp ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziar di jiital ci nuyoo yi ak ziar yëpp sëriñ Mountakha Bachirou Mbacké di ñaan suñu borom doole ko fa yàggal bu baax a baax te may ko ak wér ba naal yim naal ngir liggéeyal ko sëñ Tuubaa lépp yàlla na sottee fi loxoom ba mu sumb yeneen tañ ànd ko ak moom waaye mbokk yi di ko ñaanal baax a baax sëriñ Cheikh Jëm Fall mi fi wuutu tey maam Cheikh Ibrahima Fall di ko fa yàggal bu baax te ko ba naal yim naal ngir liggéeyal ko maamam maam Cheikh Ibrahima Fall lépp yàlla na sottee fi loxoom ba mu sumb yeneen te ñu ànd ko ak moom waaye di ko ñaanal baax sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda Fall di ñaan suñ borom dool ko fa yàggal baax te wéral ko ba naal yim naal lépp ngir liggéeyal ko waajuram wa sëriñ Modou Fall Mbenda ak maamam ja di maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ko yeggale ci sagoom te ñu ànd ko ak moom ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall xam ngeen ni leen ko waxee saa su nekk ci weeru koor wi Euh, bés bu det set euh, ñu jagleel ko kenn ci buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall tey ñu ngi fii ci Daaru Xuddoos ci kër sëñ Mour Fall Mbenda mi nga xam ne tey moo fi wutu euh, ki nga xamante ne bii tey sëñ am di Fall moom sëñ Mour Fall Mbenda tey wutu fi way juróom wa di sëriñ Mour Fall Mbenda ci liggéey bu tedd bi nga xam ni xam ngeen ne moom la njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall baaxoo ci weeru koor wu jot muy togg ay ndogu di ko jox njabootu Serigne Touba Cheikhul Khadim xam ngeen ne diir bi nga xamante ne bii Cheikh Ibra Fall euh, nekkoon na fi euh, ak ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim te ndigaloo mu jëlee woon ko ci Serigne Touba di ko wéyal ba jógee fi mboolem njabootam gi kenn ku ci nekk itam di wéyal ndigal la noonu lañ koy defee fii ci kër Serigne Mout Fall Mbenda ki ko fi nekkal tey di sëñam di Fall ànd ak njaboot gi yëpp nag ngir wéyal ndigal loolu nga xam ne Serigne Touba Cheikhul Khadim moo ko santoon maam Cheikh Ibrahima Fall ñi ngi ni nag toog ci kanamu Serigne bi fekk Baye Fall yi ak euh, soxna yi ak mboolem kóllëre ak taalibe yëpp nekk ci waañ wi nekk ci ndog yi ngir rek lépp mu sotti ñu yóbbul ko ki nga xamante ni mooy Serigne Abdourahmane Mbacké mi nga xamante ne bi tey eh, moo fi nekk eh, di wasilaam di buntam ci Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye ñu toog ci kanamu Serigne bi nag toog ak Serigne Dame Fall Soda moom Serigne Cheikh Fall moom sëñ Modou Mbenda moom mi nga xam ne sëriñ bi moom la ñu booleel ngir mu eh, yëkkati ay kaddu leeral ñu liggéey bu tedd bi naka lañ koy liggéeyee fii ci kër sëñ Modou Fall Mbenda. salaam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. lay nuyu sëñ Mamour ak ñi nga àndal ñëpp rek euh, di nuyu jëwriñ yi nga xam ne ñoo leen ñoo leen ñoo leen yebal si fii euh, ngeen ñëw taataan si liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyub ndogu yi fii si ëttub kër sëñ Modou Fall Mbenda euh, ñu ngi siy sant bu baax ñu si sant yàlla bu baax a baax bi mu nu mayee nu teewaat fi nag nu teewaat fi ren si liggéey bi nga xam ne ndigal la loo xam ne dafa bàyyi ko si Serigne Touba ñëw si maam Cheikh Ibrahima Fall ni ko Serigne bi tàmm waxe rek. Mm, liggéey boobu barkeel ga ak nangu guñu gu ko sëriñ Touba nanguloon tax ba gannaaw ba ñu demee ba gisatuñ leen it ñu làq suñuy batit liggéey boobu wéy si diggante njabootuk Cheikh Rafal gi ak njabootuk Serigne Touba ñu ñu di ko jëfe nga xam ni eh, Cheikh Rafal kenn ku ne xam na ni ndigal li Serigne Touba ba mu ko koy sant booba jamono bi jamono bu métti la woon jamono ju tar la woon waaye ni ni ñu koy nettalee saa su rek Euh, li mu doon métti métti wala li mu doon tar-tar Cheikh Rafal si pas-pasam ak dogoom ak kennal gum kennaloon sëñ tubaa ak bëgg gu mu bëggoon sëriñ bi ak it euh, dëggal digee la mu digee woon ak sëriñ tubaa xamal ko ne ko loo ma digal rek danaa ko def te loo ma tere danaa ko bàyyi pas-pas boobee rek moo ko yóbboon si mu mu liggéey ndigal lu ko sëriñ Touba mas a jox rek liggéey na ko liggéey bu sell boo xamante ne bii ba fii mu ne suñu koy nettali kenn ku xam na ni Euh, amul benn liggéey boo xam ne dina ko dabagun na ko si àdduna te jàpp nañ nit ab liggéey du ko dab boo ko Sëñ Tuubaa nee dama am gan gu gu gu sell gu may séenu bëgg nga teerul ma ko te teralal ma ko ba Seera Faal génnee dégg si ne Sëñ da koy toggaloo ay ndogu mu daal di woo taalibe yi daal leen koy daal leen koy xamal ñu tàmbali liggéey boobee sëriñ am di mii toog nettal nañu ne jamono boobee ko Seera Faal di def ay cere lañ la daa togg yoo xam ne diwu ñor lañ ko daa lañ ko daa bombe da ko defar ba mu sel ñu diko def ci ay ay ndab yu mag bu ngone takusané talibé yanu ko ñu tuddu yalla de nga wuti ke sëñ Touba suñu démé yenn ko fa bol yi ci wat ak seen turu yalla bu ñu xëyee faggu wat ay bol ay ndab ak ak ak ak li nga xamné day demaat ci mom lañu wara liggéey liggéey bis bobé mu jëm sa ngone nga sa ndogu kon liggéey bobu liggéey liggéey bu sel la won liggéey bu bu bu bu la won cheikh rafal leggeel ko serigne touba ba am ci ngeureum bi serigne touba làqoo ci suñu beut leggey bobé dafa wéy ci cheikh Modou Moussa Mbacké dirup ñett at yi nga xamanteni cheikh cheikh ibrahima fall nek na fi ak cheikh Modou Moussa Mbacké naka nonu bi serigne Modou Moussa Mbacké bi bi bi cheikh rafal làqoo suñu beutit cheikh Modou Moussa fall tambali leggey ba and ko njabatuk cheikh ibrahima fall gep bokku na ci nak ki nga xamanteni gi moy wajuru ki tok ci suñu wet muy Serigne Amdi Fall muy Serigne Modou Fall Mbenn nga xamne gannaaw ba mu noppé gis waajuram mam Cheikh ibrahim Fall rek dafa ne dan Cheikh Modou Moussa Fall magam jox ko bopam and ak mom bepp ndigal bo xamanteni bi rek ñëwoon na ci jogi won na Cheikh Modou Moussa Fall Cheikh Modou Moussa mbacke ñew ci serigne Modou Moussa Fall Serigne Modou Fall Mbenn andon nako ak serigne Modou Moussa Fall andeen wo xamanteni euh, waxtu wax wu rafet la doon wu kimaane lay doon ci lo xamanteni xañ na xajut ci jotaay bi ñu diko netali waye kenn ku ne xamna ni liggéey la bu sell bo xamanteni bi Serigne Modou Fall ben liggéeyal nako ko euh, Cheikh Modou Moussa Fall ba ni ko noppé gis mu liggéeyal ko Cheikh Mor Talla mi nga xamné mom mo wotu serigne Modou Moussa Fall nga xamné ñet ñenti at yoy mu and ak mom mu liggéeyal ko liggéey bu sell bobu ba ni ko noppé gis it mu liggéeyal Cheikh Serigne Abdoulaye Fall ndar digënté bu gatt ndax 1955 la fi la fi bayiko té 1954 la serigne serigne Mor Talla làq suñu bët. kon mu ànd ak diir bu gàtt lu toll si at mbaa lu ko manqué mu ànd kook Serigne Abdoulaye Fall la si liggéey bi yàlla dogal moom mu mu mu mu wuy ji boromam fekk ji ay magam yi ak wajuram ba Serigne Cheikh Fall mi nga xam ne moo doon ab taawam tàmbali liggéey ba waaye si gannaaw Serigne Cheikh Fall Baye góor mi nga xam ne moom moom moo wuutu Cheikh Modou Moussa Fall te nga xam ne moom amoon na ndigalul topp si gannaawam ñu ànd liggéey boobu naka noonu euh, rakkam yu bëree bëri noonu la demee woon ñu àndoon liggéey bi ak Serigne Cheikh Fall Baye góor ñu daa ko yot Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma si Njaareem ñu di ko def ba 1978 bi Serigne Cheikh Gaynde ma laqoo Serigne Cheikh Fall am ndigalul wé wéyal ab liggéeyam si Serigne Mbacke Soxlo mi doon taawu Serigne Cheikh waaye Serigne Cheikh Fall Baye góor moom it am wéyal ab liggéeyam si Serigne Mbacke Madina mi nga xam ne moo wuutu woon Cheikh Modou moo wuutu woon euh, moo toogoon jotaayub Cheikh moo Moussa Mbacke noonu la ko Serigne Cheikh Fall tàmbalee liggéey bi di ko defee Mbacke. ba yàlla dogal sëriñ bi jox ko ndigalul mu randu si Touba mu di ko defee fii si kër gii si ginnaaw ko sëñ Mbacke Madina ñu di fa togg fa ndogoyee ñaari at yàlla dogal moom it mu làqu sëriñ taala tàmbali liggéey ba 1986 moom it yóbbu ko ba ni mu làqoo suñu bët sëriñ Amdi Fall mi nga xam ne moom la ñu toog si wetam suñu borom teg liggéey bi si loxoom mu tàmbalee ko fa ko sëñ Talla bàyyi woon yóbbu ko fu soree sori nga xam ne lu sëriñ Talla da lépp loo xam ne daanañ ko def si ndogu yi fu fi Talla toll woon rek yokku na ko go goo xamante gi gii loola day feeñal doxinu yoonu murit ndax ndax kër Cheikh Rafal dañ wax ni amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am at mu jot sëriñ bi yokku si loo xamante ni xam nañ ni loola amu si woon waaye jëm lu rafetal lu selal sellal ak lu koy baaxal dégg nga loola sëriñ bi di ko def te ànd kooku rakkam ànd kooku doomam ànd kooku njaboot gi yëpp ñuy taxawé liggéey bi taxaway taxé ñu rafet waxtu wo xamanteni wër bi wi sëriñ bi ñëw téw si fi ci kër gi si daru Xuddoos and ak do njabot gi yépp ñu ñëw ñu tambali liggéey bi si anam euh, ñu sel nga xamné euh lañu da togg sax ba dañ ko soppi ba fi mu né dañoo sét togg gi nga xamné mënu mënu su amuñu ku ko gën a wala ko wala ku ko neex si suñu gis-gis sëriñ bi né nañ nañ yobbu fofu liggéey ba noni lañ koy liggéey buñu fi yendo liggéey ko ba ngon ñu talibé yennu ko ñu yëkëti baatu sikar andando wuti kër Serigne Abdourahmane mi nga xamné mo fi tok jotaay bi Serigne Cheikh Gaynde Fatma suñu démé jébbale ko fa buñ ko fa jébbalee ñu ñu sédélé ko ba nuppé ñu andaat dellu ci waat ci kër gi togaat di xaar ndigal loolu moy liggéey bi nga xamante ni si lañ nekk fi mu né nga xamné pepp fu ab taalibe nekk di tuddo kër serigne Modou Fall Mbenda na xam Serigne Amdi Modou Mbenda mi ngi ni tok fi fi daru Xuddoos njabot gi ñi ngi ni wër ko taalibe yi nga xamne nangu nañ ndigal nangu nañ ko fekk ci ndigal yéet ñi ngi ni ci wetam bu gesso rek yam ci ñom ñu and si ndigal li nga xamne ndigal la lu bayiko won ci si ci si si wajiru mu bax wala ba ex ci mom momit mu mu mu dox doxen wo xamne kuko fekk si mi ngi si kuko ci fekk ci mi ngi ci kon ñuy soññ suñ bop di soññ taalibe yépp fu ab taalibe nek na xamne lamu jaayande won ak sëriñ bi moy jox ko bopam adina ak alakhirah joxe sa bop adina ak alakhirah nak andul ak di dessal dara dara dara da nga saa tegoon ni loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko kenn ku ne lool la waxoon sëriñ bi loola nag su tebbi ko rek ka nga xam ne moo ko waxoon moo ko tebbi ndax ki joxe ki nga xam ne dafa digg ni loo ma digal ma def ko suñ ko digalee deful kookaa tebbi ay waxam kon moom moo war boppam waaye warut war moom mooy nax boppam waaye sëriñ bi kenn naxu ko kenn mu ne su ko nax te ndigal lii kat mooy suñu farata Cheikh Rafal fekkoon na fi julli fekk fi woor fekk fi xeeti jaamu yàlla yëpp waye bamu ñëwé dafa indi benen doxine wenen forme soumission bo xamanteni bi, kenn ku ne xamna ni Serigne Touba fekk nako. nako ci te deggal nako ngir fépp fu ab talibé mëna nek tay di tuddo kër kër Serigne Touba doxenu Cheikh Rafal wi rek nga sakku mu am mu nek fi yow doxenu Cheikh Rafal rek ngay té mo né ne nañ ko dingat yenn sa, si doxine wi waye ba nu demee ba dégg ni Serigne Touba di leen joxoñ sa su ne Ibra Fall di leen wax ni roy leen ci mom di kagn Ibra Fall ci seen kanam ñu diko dégg ñu xam yoon mi Cheikh Rafal nek rek moy dëgg kenn ku ne bàyyi la nga jàppoon ñu fekk ci Cheikh Rafal ci yoon woowee te yoon woo weesu jox sëriñ bi sa bopp te desaloo si dara di ñaqal sëriñ bi te desaloo si dara Cheikh Rafal da daax sëñ Tuubaa ne ko féeteel ak yàlla yow mi ko xam ma féetee ak yow man mi la xam man de bëgguma àjjana ragaluma sawara yow rek laa bëgg loola nag dasee roy sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa bindal boppam wax ni moom day li muy liggéey Rasulullaahi ak li mu koy topp dara dolliku si lu bëgg jëmi Rasulullaahi ji rek kon sëñ Tuubaa lu mu am rek bëgg jëmi Rasulullaahi moo ko ko may kon gannaaw Sëñ Tuubaa li mu am lépp te ñu teg si bët xam nañ ni bëgg Rasulullaay ko ko may kon Cheikh Rafal bu nee moom it li muy liggéey sëñ Bamba dara dolli ko si lu bëgg sa jëmmi Sëñ ji rek war nañoo mën a xam ni lépp luy lu baax rek Sëñ Tuubaa lu suñ tubaa am rek xëpp na ko maam Cheikh Ibrahima Fall te loola ñoom it Sëñ Tuubaa si suñu borom rek la ko royee ndax suñu borom moo sàkk Rasulullaay sakkal ko ndey sakkal ko baay sakkal koy wajur bind doomu aadama yëpp seppi ne ko yaa ma gënal ku la gëmut ab la kon yàlla moo njëkk a bëgg rasulullahi sëñ tubaa ñëw topp bëgg rasulullahi Cheikh Fall ñëw ne moom ak bëggam sëñ tubaa rek bëgg gi mu bëggoon sëñ tubaa nag moo ko may li mu am ku bëgg ak ku bañ buñ nee sëñ tubaa Cheikh Fall rek lañ ciy teg lu lu yoon wi yaatu yootool lu ñu fi mën a indi lu mu mën a am si addinaat lenn rek la ñuy nawee ab taalibe muy roy Cheikh Fall ci jëfam ji rek muy jox sëñ tubaa sa jox jox sëñ tubaa sa bopp te desaloo si dara jox ko sa addina jox ko sa dal jox ko sa yëngutu jox ko lépp te si dara loo doxin woowi nag moom lañ moom la ñu Cheikh Rafal dimbalee liggéey boobu nag ci la Serigne Amdi Fall mii nekk ak njabootam ñu ñaan yàlla na ko fi suñ borom bàyyi mu yàgg suñ kanam ak ak rakam ak doomam ak taalibe yëpp rek di lépp lu ñu ci sàkku ci liggéey bii ngërëm lu ñu ci sàkku yàlla ñu ko suñ borom defal di ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko suñu kanam ngir suñu sag la dañoo bëgg ci moom ngir téye gi mu téye kër sëñ Modou Fall Mbenda téye ko njabootu Cheikh Rafal gi loolu day ñun sant nañ ci gërëm nañ ci waaye noonu rek la mën a mel ku sëñ Modou Mbène di sa wajur nga jaar fi nga war a jaar ni mu mel rek la war a mel kon ñu ngi koy ñaanal yàlla sama borom yàggal ko fi te wéral ko di leen sant di leen gërëm di ñaanit yàlla nañ fi teewaat na ngeen déwén te borom defal ñu ak yokkute bu wér a wér ba sëñ bi ndigal lu mu joxee rek ñu jekk ko ba mën koo jëfee nam ko bëggee asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. ñu tuuti rek liggéey bi nga xam ne fekk nañ leen ngeen koy liggéey fii ci kër sëñ Modou Mbène muy ndog ne baaxoo nañ at mu jot du ko yéen naka ngeen koy taxawoo bismillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bañ santee yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi sant Seera Fall di sant sëñ Modou Fall Benda di sant sëñ Amdi Fall Modou Benda mii fi toog xalifa sëñ Modou Fall Mbenda di sant sëñ Cheikh Khady Fall mi nga xam ne suñu dund ci kër sëñ Cheikh Fall Modou Mbenda ñun ñoo ngi fi Cheikh Fall Modou di liggéey liggéey bi ñuy liggéey ñun ñoo ngi féetewoo ci nul kër sëñ Cheikh Fall Modou Mbenda ah fas yéene nag dooni taalibe nañu fi suñu waajur daan na ko suñu waajur daan defe rek seex Cheikh Modou Mbenda noonu lañ ko fas yéene di defee fas yéene di liggéey di joxe àddiya fas ko yéene takku laxasaayu nag weer wi yëpp fas yéene suba gu ñu xëyee dinañ xëy yendu fi ba jant bi so bañ jébbale ndogu yi jébbal ko sëñ Abdourahmane Mbacke ci ndigalu sëñ Modou sëñ Amdi Fall Modou ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci barkeb Serigne Fall barkeb sëñ Modou Fall Mbenda yàlla defal ñu ci tawféex yàlla may ñu ak wér ak wérle yàlla defal ñu jàmm yàlla nangu ñu suñu be ak lépp lu luñ fi liggéey rek yàlla nañ ko Serigne Fall fay barkeb Serigne Fall. jërëjëf Fall yaram ñoo ngi ziar bu baax a baax dañ fay ñëwaat comme ñu ñëwee woon daaw ngir ànd ak yéen liggéey bu tedd bi nga xam ne yéen koy liggéeyal sëñ Modou Mbenda ci weeru koor yi nga xam ne liggéey bu tedd la bu fi bàyyam bàyyi woon maam te mboolem ëtt këram yëpp te ñu ko ciy naka ngeen koy taxawoo fii ci kër gi. kër gi salaamaaleykum maa ngi di nuyu seen tur ak seen sant ko bisimilah rahmaani rahiim ko rabbil alamin sant sunu ak ak sëriñ andi ci kër gi bañ man fee nekk ba ngeen doyloo ba dinu laaj li eh, fii nag ni ñu koy saytoo moom mooy noo ko tàmbalee woon ci sëñ Cheikh Modou di togg ñu ko ànd ak Soore Ndiaye ñoom ak soxna Aminta ak soxna soona Yacine Ndiaye ñu di ko toggale te ji di ko jël di ko def ci mbaar di ko indi léegi di ko di Touba biñ demee ba yàlla def te ji ñu wël bi indi ko Touba ñu di ko togg ba sëñ am di Modou Mbende euh, sëñ kii jóge fi sëñ Cheikh Modou Mbende jóge fi sëñ Talla yor ko ñu ànd koog moom ak Yacine Ndiaye ñu mag soxna ñu di ko togg pëstee bi nag moom mooy xale yi moom yoonu Baye Fall moom mooy jëfe ndigal bàyyi tere lépp loo xamante ji am nañ ko ci biir kër gi ji la ñu ko jëme sëñ am di mu udu mbende mii ñëw léegi moom it toog wuutu wuutu magam yooyee mu toppan na mu leen toppee nag ay doomam topp ko lu mu dox leen ñu def ko lu mu leen tere ñu bàyyi ko ba mu jël cindi sëñ Fallou ak sëñ Daam ni ma jiite ko bu ñu ko jiitee léegi te ji ma takk ko ànd ak ñi ko ànd lan muy soxna Astu Ngom ñoom ñi ak Mbeer Njaay ñi ak waa Njongeet ak waa Cinni daal yaatu la boo limee da ngay juum waaye ñoom Pastef ba ñu yoroon ba da nga ni Pastef booba lañ yor koo gis moo am mu am ci lu ko lu muy wax xanaa naa daw naa indi naa wuti naa joxe waaye amul lenn loo xamante ji nit dina ko fi looloo dina ko fi xëyroo wala ñu def ko fi lenn xanaa nekk ci taalibe rek lépp lu ñu am daal ci cin lañ ko jëme sëñ am ni muuru mbenn daal daa yomba defal ndax loo ko defal lu ne rek ma euh, euh, euh, mel na defal nga ko lu rëy na mu toppee woon nay magam nag ni la ko ay doomam toppee ñu àndal ko sëñ Khalifa Fall rakkam yàlla def mu jiitu ak seex Mbacke Fall ñu ñaan yàlla na ay ay yaxam seen la yoo xam ne ñoom dafa doon dox ba nga si dox boobee daa jëm kanam waaye jëmul ginnaaw no taalibe Cheikh Ibra nag moom ku ko bëgg a rey ko ne da ngay def ni Cheikh Ibra ndax Cheikh Ibra amutal dara bëggul woon dara Serigne Touba la moom la doon def ñi fi nekk moom la ñuy def sëñ bi itam ci loolu la nekk ak i doomam ak i taalibeem doon doon euh, sëñ bi jur la nag nga fexee doon Cheikh Ibra ko gën ndax Cheikh Ibra loo ci jëfut doo ko am kon nag Cheikh Ibra yàlla na yàlla may kattan ak wér ba liñ ci bëgg te bëgg koo jëf yàlla nañ ko jëf te mënu ko jëfee yàlla nay dëgg te te te muy sunu njiglaay te nu ànd koog taalibe yi sant na nag yëpp. képp koo xam ne nga ni alamtu nëf si ci kër gi sant nan la ndax kër gi moom amul xiiroo amul leen xanaa àndandoo di liggéey ak ci ndiim ñu ma ko àndal ñëpp di góor di jigéen sant nañ ñëpp di leen sant nag yéen waa rajo bi di ñaan yàlla yéen seen rajo bi ak seen télé bi yàlla na yàgg ba door ay télé ay télé ay télé télé ndax at ma jot ngeen ñëw fi te seen bu baax a ko kon noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm di sant ñu àndal ñëpp nag te di leen woo ci taalibe te nu takku rek te nu am def ko ci te bañ a xam leen te ñun dañ ñuy diri rek pour ñu diri rek foofa mooy fa nu gënal noo ngi sant noo ngi gërëm Eh, jërë ngeen jëf mbokk yi kon li moy liñ leen doon jëlal fi ci kër sëñ Modou Fall benda eh, ci khalifa bu tedd bi tay di sëñ Amdi Fall di ñaan yalla mu yagg fi lool te wër waye fekk ci mbolam jabor gi ku ci melni Serigne Moustapha mom sëñ Modou benda ak mbolam jabor sëñ Modou Fall benda gi yëpp di santat bax bax mbolam mbokk talib yi nga xam ne fekk nañ leen fi ñepp seen yi rek seen pas-pas mo diggel Serigne Touba Cheikhul Khadim di ñaan yalla yalla nañ ci dajje ngërëmal mam Cheikh ibrahim Fall alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh